site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu fatik andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fichier ci diwanu fatik togal fi région bu ak Sénégal TV joko kontaan rek ak sante yalla di wax alhamdulilah ba muy ñetti yoon tay ñepp xam nañ ne depuis mois de juin juillet ba légui danaka mën naa ne stade bi moy suñ kër une première dans la zone 2 nak ñu gis nañu commencé nañ nawetaan ba jéxal ko ci mois de décembre ñu ci sante yalla bu baax a baax malgré problème yi amone ci stade bi yépp ñu tëjoon stade bi bu lolu wesso damay sante di gërëm sama parrain ñepp xam nañ né début bi jëk nañu jëlal en charge ben écran géant valeur de 1 million 800 bi final bi yexé mu da fay équiper 17 ASC yëpp jox leen euh, une enveloppe de 2 millions 500 pour l'achat en tout cas des jeux de maillot parce que habillé 17 ASC Après, après mu wat enveloppe de 2 millions 500 né li pour organisation concert bi nga xamné fête de fin d'année la bëgg may la jeunesse sportive faticoise wat une enveloppe de 2 millions 500 ne li pour mise bi la pour ASC donc dama koy sante diko ko ndax li c'est inédit mosul am ci zone bi. vainqueur baa ngi am 1 million té mise bi tamit mu ngi soga yegg fof vainqueur baa ngi am 700000 donc pour cadet yi vainqueur yaa ngi am 500000 vainqueur yi baa ngi am 300000. en fait Mohamed ci liguey la ko xamé bima ko xamé ci liguey euh ñu waxtaan ben jour ci ben cachet final bi jeex ma jox ko cachet bi légui bima ñibé ay 2 jours. Mohamed envoyé ma vidéo boo xam ne mën naa ne clip la ça fait dafa émerveillé woon vidéo bi dafa émerveillé woon sax waa ONCAV ba le président de l'ONCAV réagir félicité ma ne ma zone 2 liggéey bi ngeen di liggéey gis naa ko ba ONCAV jël vidéo boobu dugalaat ko ci site internet am pour féliciter zone 2 donc loolu c'était grâce à lui te santuma ko ko woon bi ma ko laajee lu tax mu ne ma dafa am lu ma sekkoon ak ngom ñaa sama comme mënu ma ko fay ma jaarale ko ci yow ma xam ne kii nitu kóllëre la ma xam ne kii nit la daal boo xool booy xool nit ak ay jikkoom kii nit la ma seetlu ne tamit buñ demee ba zone 2 egg foofu moom moo tax donc bëggoon naa trop mu fekkee ko parce que tey jii tamit final bi yaakaar naa final bu mel nii Fatick mosu ko ko dund donc ma gis ne moom rek lañ ko war a delloo njukkal parrain bi tam kontaan ci parce que nee na ma ay mbokk lañ donc loolu la maa ngi koy maa ngi maa ngi koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fi mu jóge di leen remercier aussi yéen waa Sine TV def ngeen si seen xaalis tey wàcce kaamil def ngeen bâche def sono jël seen xaalis def ay laax jënd jënd ndox jënd jox ñu jox nit ñi alors que loolu yëpp ñun ñoo ko waroon def ñu gisaat ngeen ñëw jël seen matériel yëpp bu avez sorti le gros jël seen matériel yëpp ñëw couvrir événement bi ñep xam nañ li ngeen di défé couverture médiatique té ba légui kenn waxuma ci né raxu li wala li wala li wala la té je sais que loolu yëpp vous l'avez fait pour que bëss bi fep fuma ko teg rek ngeen jël bar bi gën ko yobbu fo xamné bu fi fekkoon amet def ko fay yobbu ma ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baaxa baax. présentation bi nak du lu jafé papa Jamil Sarr lañ may woyé ci état civil ma tuddu papa souleyman naturellement la ko dundé xam nga man eh, sport sama passion la beneen bi football dama ci yë yëngatu lu bëri waaye nag li ëpp solo mooy Fatick lépp lu ñu xewle ak lu mu doon bu ma ci jëmee day nekk jaam buy liggéeyal ay buuram man jaamu askan wi laa loolu laa mës a gëm sama diggante ak ñoom yàlla dogal ci nag jox ñu ay responsabilité responsabilité du état moo ñu ko jox du nit moo ñu ko jox waaye yàlla la responsabilité bi moy ñu wara and ak suñuy morom wara am ci ñuñ manager wara am lu ñu roy ci ñoom wara and ak ñoom loolu la rek li ma yëg ci final bi moy am fierté euh am fierté ci ndawu Fatick ngeen gis nak yeen journaliste lu rare tay ci stade bi mooy on a joué dans la pacificité zéro violence zéro insulte amul sànni xeer amul dara match bu neex bu am football bu am jeu

je suis Papa gay le mandataire national de Diao 2024 Beaucoup appartenance politique bokkuñ gisin politique, frère bi mu nekkoon ci man nijaay bi mu ci man goro bi qui nekkoon ci man kon ne di ko def une fête de la jeunesse Fatick ñëpp de seen xol Le choix bi choix c'était naturel man damay jël vacances chaque juillet à août du 1er juillet au 5 septembre de chaque année depuis 5 ans sama ay vacances là waaye yàlla dafa daf ma nattoo bu ma vacances man mënu ma dund France mënu ma dund Dubaï mënu ma dund États-Unis euh, bu ma jëlee vacances Fatick la koy dund ak sama ay morom sama ay xarit sama ay amis d'enfance pendant deux mois ci biir vacances yooyu lañ tok di waxtan mak Abdourahmane mu ne ma su ma nawetaan ren yi laay xalaat ndax amuñu paré mané ko jox nañ le budget 5 millions naturellement Adjamil Holding dina la accompagner ñu dem ba ci biir ñu yokk budget bi parce que gis engagement bi mu am moom Abdourahmane ak équipe ak nu ñu mel la fête est belle fête ngi continuer ñoo ngi ci concert yàlla dogal nag natt ma man duma déglu musique te duma ko waaye ndaw ñi comme moo leen neex ñu def ci sunu alal pour ñoom ñu déglu ko bégal xol mu une fête de la jeunesse. Euh, dara naturellement sama yaay euh, daf mokkal alxuraan yor du salaatul faatiha nekk jigéen cest di dire pour ngeen comprendre sama attitude ak sama réaction foog ngeen comprendre ki ma yar mu wax ma ci làmmiñam ne nit bu amee lu ëpp ndékki añ reeram li des da ko war a jihaadee mu ne jihaadu jaase daa yomb ndax dee benn yoon la waaye jihaad bi gën a jéem ci jihaad yi mu ne ma du bakken ma ne ko lan la mu ne ma joxe sa alal te xaaroo ci dara te kenn mënu la ko delloo ko dul sunu borom dogal nag. bi ñu màggee ñoo du suñu alal luñu suñu borom denk la té heure bu ko nexé jël ko daañu ci profito di ci fexé def lu baax té xamné jamono buñ ko ñàkkee it ñu yëg ne bam ñu ko denké mom suñu borom wuñu té jëm na ci def lu baax euh, santé nak di priorité di lo xamante faw devoir lañu jappalé dam leen di wax né ci walu développement li ñuy wax les indices de développement santé ak éducation ñoy priorité mais santé accessibilité bi xam nañ ne Sénégal dafa jafé donc ci état yi fi jaar yëpp def nañ le maximum waye amna lo xam ñun privé ñoo ko war di jël engagement poste de santé bobu ay nit ñu bax ñoo ko taxawal taxaw na sama ben xayit Babacar Diouf de Pouxam woo ma ne ma changement logement charge femme bi dafa dess liggéey ma woo président comité de santé bi ñu waxtaan mu wax ma beneen salle d'attente ak équipement yàlla dogal li ciy tabax ak finition danaa ko jël yàlla dogal li ciy équipement le trésorier général Abdoulaye fal ne dina ko jël ma koy gërëm di ko sant ci turi waa Fatick yëpp. yàlla dogal na nag bi may def lu baax sax amaguma société xam nga nag am na ku ma accompagner jall jalaalahu la tudd azza kamalahu rabbi samawati wal ard xam nga jàmm moom dafay modeste xam ne lu mu mën ak lu mu am yàlla la neex. yàlla dogal na final bi dërëmu kenn ak koo xalaat demu ci ku dul lu ma yàlla wërsëgalee ci société Jamil Holding ñu jël ko diggante deux mille vingt deux ak deux mille vingt jël nañ cinquante millions dugal ko ci Fatick à travers l' la santé ak ay aide sociale ci diggante ceeb diwlin suukar ak leneen ak leneen te duñ ko caméra duñ ko fu photo ndax ci loxo sunu borom lañ koy teg moom lañ yaakaar mu fayaat ñu léeg-léeg ñañ koy jox sax yàlla dogal na duñ leen xam. léeg yàlla dogal faju doomu aadama jaar ci suñu loxo wala ordonnance am wala fayu location am wala fayu jàngam te yàlla xam na ne ñun duñ ko xam am ay nit ñu baax ñoo xam danañ ñu wax ne diw ak diw boo leen jàppalee da nga ci am yàlla ñu jéem ko ren Jamil Holding diggante deux mille vingt deux deux mille vingt trois dépensé na cinquante million ci commune bi jàppalee ko ay nit am na lu gën a mën a firndeel loolu mooy li yàlla dogal mooy tey Eh, final bi def nañ ci 10 millions ci le sunu borom dogal société jamil holding def ko à travers man mi len jité wayé suba ñi ñu wax signe du futur dañuy def dîner de gala yalla dogal na daw ñoko financer on à hauteur de 4 millions 500 ren ñu octroyé wat len 3 millions de francs CFA yalla dogal nak ki di soxna jëna tamit di def pour concert gratuit ñu accompagner ko luyel ko hôtel hôtel fayal ko ay musiciens kon ñun lu ñuy def yàlla dogal na bénéfice su Jamil Holding la ñu bokk ko ak xeet gi ñu bokk te li tax ñu koy gën def dañ leen bëgg a won ne nit mën na am espoir te du nekk politicien nit mun na am espoir te du nekk ministre te du nekk directeur général nit war na mun a liggéey ba réussir comme Ablaye Diasseni ko dëkk Fatick war na mun a liggéey ba réussir mel ni Alioune Ndour ba pare continuer di ko delloo ci askanam moo tax li yàlla dogal mooy que nous réalisation, dans la réalisation xaalisu Jamil Holding la waaw ci poste de santé nous avons le trésorier général Abdoulaye Fall poste de santé Jamil Holding à travers ce qu'on appelle les RSE

mbaa fay ak fop yaaya moom ci sunu bopp Ameth di suñu maam ndax yaayam suñu tante yu kilifa gi ñu fi dese la muy góor gi Mamadou Mané bu saañ kon sunu deret la moo tax bi ma Abdourahmane wooyee ne ma trophée bi de dama ko bëgg a tuddee trophée Ameth Sokhna ma ne ko trophée sët ngay jël di ko tuddee maamam yàlla na ko yàlla xaree aljana mu eggalee ndawam allahira ci barki Seyduna Muhammad dara dara dara dara xam nga nag nit dafay am limite gis nga en En matière de gestion de l'État central, il y a des domaines réservés à l'État central. Il y a des compétences partagées et transférées aux collectivités territoriales, telles que le conseil départemental. Il a la responsabilité de l'Estat, avec le ministère du sport. Le Poulou directeur des infrastructures du ministère du sport la collectivité territoriale le conseil départemental New York construction ba entrepreneur bu dogalé nak ma dëkk Fatick responsable yi sék loolu yëpp dëkk Fatick dama ci mandu té rafetal ci lu bari ba bés buñ ma ci interpeller ñom léralal ma ndax xawma lan mo té turbine bi mun ma ci wax da entrepreneur bi koy tabax suñu mag la dëkk Fatick conseil départemental ki ko yor di suñu nijaay dëkk Fatick amuñu benn relation waye nak dañ koy respecter bàyyi leen ci sen euh, affaire privée sen affaire la ñom état central bi comité comité de gestion stade bi nga xam conseil départemental L'État, ko yilif bi koy wax à dire état bi ma man parce que li tax ma bokk ci état suis républicain L'État l'état ma bokk l'état, état mooy politique de développement bi may def li ci ëpp dama gëm vision président Macky Sall donti politique ça ma appartenance lu qui ci pas nabee ndax buma ma luma wara wax dama ko war wax xam nga ay ndaw buñ amatul espoir dañuy immigrer té aduna bi ci immigration la la ça ça à dit, bu ñu bané, berceau de l'humanité amna ci monde bi moy feneen fi ñëpp dëkk ñëpp kèn dëkk fa ça à dit il faut qu'on soit cohérent psychologiquement ci xam-xam xam nga cohérence intellectuelle mo mayewul ñuy bañ immigration mot bi mën nañ ko bañ pratique bi niñ koy defee wayé bañ immigration mënul né foog suñu état yi am fulla ak fayda ni xalé tubaab di juddoo France am sept ans bu ko visité Sénégal dem aéroport yóbbu passeport kessé du joxe visa ñëw dugg Sénégal tok fi bam mu nekk ko ñibbi ñun fulla gogu war nañ ko am ci France Espagne ak Europe ak États-Unis ça dit bala may jox appel ay ndaw ndaw ñi buñ fi togué lu ñuy def yaa ngi fi mang fi ça dit cent ndaw yu liggé trois ñoo ci réussir parce que c'est difficile organisation bi possibilité yi c'est difficile bala ñuy wax ak ndaw ñi ñu wax ak famille charge familiale li ñu leen teg antanuñ ko yow seen cœur ki fa ëpp xaalis bu nekké xalé mo yo cadeau gi kenn amatul cadeau cest à ñun fokk ci walu éthique déontologie étatique et familiale ñu jël suñu responsabilité bala ñuy wax ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi bu dee responsabilité bi sans la 10 lañ ci yo les 60, c'est l'État les 30, ce sont les parents et la société tout entière les 10, mooy ndaw ñi moy inconscience te ñu ci bëri du inconscience désespoir parce que ñi ñu jité ñoñu nous jaayul des rêves. jaayul rêve gis nga ay ndaw bo leen di jité da leen di jaay rêve ak nous waye télé bo leen ko woné ñu outil solution té outil solution Nous lu neexat na ci motax lolu ay laaj xam nga dafa am wax violence bi ci désespoir parce que xalé bi saña jël domam ak jabaram yépp ci gal outi Espagne té mu leer ko ne mun na dé ci yoon bi dotul gis papam ak yaayam jabaram dé moom mu dé dotul exister mu jagal ko ko xale boobu boo ko nee génnal pour lii changer dana génn xeex motax tax ñu xolaat gestion état yi euh, limay faral di wax le président Macky Sall mo ngogol le maximum mais ñi mu andal amna ci ño xam wan nañ sétat sen doxalin la gestion immatérielle de l'état loolu dafay gêner xale mu daw di outil solution mu daw di outil solution ba pare nañu nañu xol société sénégalaise liñ leen di teg ci impôt 10 na liñ leen di bundu xataal 10 na boo position sax buñ japp ne arrangé wu lañ état bi teg la ay impôt ñaata société ño daanu bobu ak tay pour lan Ça dit sénégalais do daanu société yoyu di tej ay sénégalais ño ci liggé xalé yooyu ño nek ci désespoir gis sen morom yi perte sen alal xale yooyu ñoo jël décision jël gal xale yi leen di wax ñu xamné yalla fi ne lu gis ci aduna dana jeex nañu ñu parce que question de foi da ci am solo koy France école yi gën ci bi chaque année 19 000 jeunes ont def tentative de suicide té 15 000 yi day réussir problème de déontologie la ak foi parce que da am loxum gëm yalla moy nga magando ak khadijatu mu am yow munoo am bo outé do am lo dugg du sotti loolu boo munul wàqirlu ci yalla pour dellu ci mom da ngay am problème psychologique te problème psychologique nak koku am mën na dugg ci lu né kon ñu dellu ci ngëm yalla parce que moy seule solution Allemagne biñ démé ba gis nit ñi di xaru dañoo financer li ñuy wax éducation religieuse dans les écoles ñuy jàngale catéchisme ak religion musulmane xale yi delluwaat ci ngëm ak ci foi loolu lu am solo la message ma leen di lancé mooy ñu delloo mbir mi ci gëm yàlla xam ne yàlla mooy dogal waaye yéen ni ñuy jiite ñu yërëm ñi ñu waaw ñu yërëm ñi ñu politique publique bi président Macky Sall moo ngi dem ñoo ngi koy gërëm ci lim ci def ci wàllu social ci ndaw ñi ci mag ñi ak ñëpp ak wàllu emploi waaye ñi ko war a jottali am na problème ndax 1000 milliards nga investi ko ci financement des jeunes nga mëna perte lu ëpp 15000 jeunes ci géej mooy ña nga jox pour ñu yóbbu financement yi eggul wala nañ koy joxee baaxul kon foog ñu organiser waat assainir cadre gestion de jeunesse bi xool nuñ koy defaraatee ba pare ñu ñuy indil ay ministère de la jeunesse yoo xamante tamit am nañu xam-xam parce que gestion management nu ndaw dafa jafe psychologie sociologie yu uute nga war leen jël ñoom ñëpp yilif leen du borom xam-xam moo koy def waaye borom dal moo koy def. borom jikko moo koy def te jikko dafa jafe. dan nañ ko def discrètement ci yenn presse yi ñoom xam nañ ñun xam nañ parce que wax naa li ñuy def bëri na mais du lépp la ñuy wax léegi léeg yenn yi sax dañ koy fàtte mais li ma la mun a wax mooy dana am danañ lañ jàppale que ça soit presse local nag ak beneen presse ndax waa web info ñoo fi tey ñëw volontaire gunge ma waa Sen TV waa ministre TV ak Nes Nesi Vision ñoom ñëpp danañ xool nu ñu àndee jàppale leen incha allah. de satisfaction avec laa am di gis xale yi di reetaan j'ai vu la jeunesse ñu amaat espoir parce que dafa am lu ñuy jaay jeunesse su Fatick après Macky Sall dañuy torox man ma am lu ma di jaay après Macky on va continuer à exister à l'échelle nationale man loolu laay promouvoir parce que Macky Sall avant mu fi ne sunuy ndey ak sunuy baay ñoo fi nekkoon di dund te Fatick da doon dox moom nag def na lu kenn mësul def ci histoire parce que de 1272 à aujourd'hui, le Sine n'a jamais connu une figure historique comme Macky Sall. Une figure bu Macky Sall am histoire il a trop fait il a désenclavé Fatigue, il a tout fait pour le Sine Il a amul acte bu perfection il des a gëm pas ci politique mais ci action de développement ci nga tijji sa société la nga am nga bokk ak say ndaw ci solidarité ci unité motax ma ngi woo Fatick waa suba ñu soutenir Soxna Dieng ñu soutenir wa sin du Futur ci li ñi def parce que soxna mo ngi def lu am solo immigration bi mi def euh, lutte contre l'immigration clandestine def ko conseil wa sin du Futur tamit di di di di di di di ragné ay doomu fatik yo xam dañu doxal ci année bi di len décorer kon nak lolu wa dem sin du Futur ci sen de gala ñu waa Fatick assister xool doomu Fatick yi ñuy décorer ñu jéem a roy ci ñoom ngir ëllëg ñu mun ñoo décorer parce que loolu am solo la diine dëgg laa bu am solo am classe ñu koy def même soxna jee lutte contre immigration bi muy def tamit clandestine bi ñu dem gunge ko mais satisfaction bi ma am ma répété la ko mooy gis naa xale yi di ree gis naa ñu kontaan waaye nag li ma leen di wax ñoom mooy dañoo nekk ci obligation wu booloo nekk benn

yenn euh, affaires yi ñuy dund folklore ñu wàññi ko te xam ne réew mi réew mii réew réew réewu jàmm la réewu aafiya la ak réewu tànn site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick un le lu bees Le plus lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne plus topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV joko dial